Sonko amul candidat. comment ça. ñiy wax ñëpp Ousmane Sonko. yónni mais son parti a fait retirer des fiches. ma maa lay jox une information de taille. te fii laa koy waxee doo gis ku koy weddi ñiy wax ñi ngay dégg ñëpp ñu dem retirer fiche dem retirer fiche nekkuñu ay candidat Ousmane Ousmane Sonko. waaw ñoom nee def au cas dama ne Ousmane Sonko. fu mu nekk nii 2029 lay négocier ndax dina nekk candidat mbaa du nekk candidat. comment ça il s'est résigné ci 2024 xam nañ du bokk. xam nga Mamadou Awa gis nga li ma ne gis nga li ñu nekk di wax ci télé bi ak ci rajo bi dañuy def de manipulation de désinformation waaye fi may waxee yow laa la wax te ñoom dañuy weddi ñoo gën a xam nañuy wax sénégalais yi li xew Ousmane Sonko Sénégal soxla na ko Ousmane Sonko dafa war a. dafa am solo nga ne pare na ci waxi 2024 maa la ko wax bind ko suba waxatul waxi 2024 Ousmane Sonko 2029 lay négocier hmm? na. waa Pastef ma ne doo dégg waa bu ñu weddee ma tegal leen lu leer ci kaw table bi Ousmane Sonko waxatul. foo teg loolu. waaw yow tamit xam nga dafa am loo xam ne nag du ma toog ci télé wax waaye xam nga man lu tax may wax loolu pour xale yi nga xam ne ne dañoo toog seen kër jàpp na ne Ousmane Sonko day nekk candidat 2024. jàpp jàpp jàpp nañ ci génne seen xel. nañ ci non génne seen xel nañu dal. xam na ne yàlla mi nga xam na ne. merci mooy dogal kii nekk président 2024 dogal na ne Ousmane Sonko schéma boobu avocat yi li ñuy def yooyu yëpp ay tour lëndëm la ay rôle avocat la parce que c'est le droit dañ leen di fay dañu war a def seen rôle. waaye ñii nañ li ñuy wax amut Ousmane Sonko fi may waxee yow nii mu ngi jéem a lijjanti naka lay bokkee deux mille loolu moom maa ko.